الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان هل تعلمون يقينا لماذا خلقنا الله لماذا خلقكم الله هل تعلمون حقا حقيقة هذه الدنيا هل تعلمون أن بعد الموت بعثة وأن بعد البعث حسابا فإما جنة وإما النار هل تعلمون هل تعلمون هل تعلمون آه يا ليت قومي يعلمون إخواني إن أول ما ينبغي عليك تعلمه فقه السير إلى الله فتعرف السبيل الموصول إليه جل وعلا كي تمضي فيها ومن المعلوم أن كل سبيل لا يخلو من الأوائق وكل طريق لا بد له من نهايه ودائما تكون الأحداث هي الباعث المحفز للجدية في السير فعلم من هذا أن مبادئ هذا العلم الثلاثة معرفة السبيل معرفة الأوائق التي فيه تألق القلب بالمقصود مقيتي الله ginnaaw bu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di ñaanal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ndax xam nañ dëgg-dëgg ndax leer na ci ñun ndax xam nañ dëgg-dëgg lan moo tax yàlla sàkkunu lan moo tax yàlla bindunu ndax xam nañ est-ce que kenn ku nekk ci ñun ku toog fii ci jumaa ji ci biir ak ci biti ak li ko wër kenn ku nekk ñun ku nekk jullit ndax laaj nga sa bopp laaj bi lu tax yàlla bind ma hal taalamuna xaqiqan xaqiqata hadihi dunia est-ce que dëgg-dëgg adduna bii ñuy dund leer na ci ñun dëgg-dëgg àdduna mooy lan est-ce que leer na ci ñun est-ce que xam nañ li tax yàlla bindunu est-ce que xam nañ dëgg-dëgg àdduna bi nuy dund lan la su ñaari leeree ci ñun rek suñu dund dootul yàqooti suñu dund day jag est-ce que leer na ci ñun ne hal taalamuun anna baada al mawti baatha est-ce que xam nañ ne bu ñu deewee mbokk yi ginnaaw dee est-ce que xam nañ ne dekki am na est-ce que loolu leer na mbaa ñun bokk ñu ci ñooñu naan in hiya illa hayatana dunya namuutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr mbaa ñun bokk ñu ci ñooñu ñi nga xam ne dañ naan dund adduna rek moo am ginnaaw dund adduna amul dekki zaama alladina kafaru an lan yubaasu qul bala wa rabbi la tubaasunna summa la tunabbi'unna bima kuntum ta'malun yàlla subhanahu wa taala mu nañu am na ñu wax ne ginnaaw dekki dara amul yow Muhammad waxal ak gaaya yi na nga leen wax ne giñ naa ci sama boroom yàlla ku mu rey dina la dekkil la tubaasunna laam bi laamul xasam la nuun bi nuunu tawkiit ñu jàng naxu xam nañ loolu yàlla ne dinaa leen dekkil kon bu yàlla ne dinañu dekkil war nañu gëm ne ginnaaw dekki am na luy xew suñu gëmee suñu xamee li tax yàlla bindunu ñu xam dëgg-dëgg àdduna bi fan lay mujj ak ñun ñu xam ne bu ñu deewee ginnaaw dee dinañ dekki ñett yi bu leeree ci ñun rek kon suñu dund bi tey du mel nii déjà tey la 30 30 lan décembre suñ nee tey la 30 décembre xel yépp day dem ci suba la 31 kay fa xaalunaa fii 31 décembre lan mooy suñu mbir ci 31 décembre bari na ku fi julli si jumaa koo xam ne mi ngi daas fanaanal suba ci heure yi kenn du ko mën a gis parce que dafay préparer mooy yàlla suba bari na ku toog fii ci ñun ci jumaa ji ku préparer rendi ay ginaar suba ak lekk yàpp di préparer mooy yàlla suba ci ñaari mbir dañu ne suba feet la benn suba mooy at bi ci lay jeex at bi atukal la yow jullit sa at la tontu mooy déedéet bu fekkee feet la feet bi sa feet la faw jàngee ci alxuraan ak sunna ñu ne la nga feetu 31 décembre fan bu ci gën a doy waar nag mooy dañuy waxoon ne yàlla am na doom suba la koy ngénti 24 laa yàlla am doom 31 décembre mooy ngénte bi tey boo jaaree mbeddi Dakar yi lépp peinture nañ ko peinture garab yi defar verte zone rouge ci ay lampe di ko xuy xamaj ci dëkk boo xam ne nee nañ amuñu courant sax dañuy jooy courant courant boobu ñuy taal ci mbedd mi di fo pour fo encore pour lan la ci di feetal ay jullit ñuy feetu yàlla am na doom saar boobu ñuy jàng te muy carte d'identité yàlla lan la wax qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad jurul kenn kenn juru ko jinne yi bi ñu déggee ñu ne yàlla am na doom lan lañ wax wa anna zananna an lan taqula al ins wal jinn ala allahi kaziba ñun yaakaaroon nañ ne nit ak jinne du ñu fenal yàlla jinne yi ñoo wax loolu de jinne jinne moo wax ne yaakaaroon ne nit du fenal yàlla asamaan bu mu déggee ñu ne yàlla am na doom lan la def yàlla mu ne yakaadu samawaatu yatafattar na asamaan mu ngi xotteeku wa tansaqul ard suuf di xar wa taxirul jibaal montagne yi ñu mab ñu ne yàlla ñett yi lu ko waral mu ne an daaw lirrahmani walada ndax nee nañ yàlla am na doom te wa ma yambagi lirrahmani an yattaxisa walada wa ma yambagi wa ma yambagi la wax yellul yellul jaaduwul yàlla subhanahu wa taala muy am doom yellul wa ma yambagi li rahman an yattaxisa walada léegi ñun jullit ñi bi ñu ko déggee lan mooy suñu réaction mooy ñun dañuy feetu suba 31 décembre ñun borom kër yi kasirun minhum yastaiduna gadan ñu bëri ci ñun suba préparé nañ mbokk yi hal taalamuun anna baada al mawti baasa est ce que xam nañ ne ginnaaw dekki dee am na ginnaaw dee est ce que xam nañu dekki am na wa anna baada al baasi xisaaban est ce que xam nañ ne ginnaaw atte dekki atte am na est ce que xam nañ ne bu nu yàlla reyee est ce que wóor na nu dinañ dekki xam nañ loolu est ce que xam nañ ne bu nu yàlla dekkilee est ce que xam nañ daf ñuy fay est ce que xam ngeen ne fay bi ñaar kese la imma aljanna wa imma annaar benn nga dugg aljanna rek wala nga dugg safara amul feneen ixwati fillah inna awalu ma yambagi alayka taallumuhu fiqu sayri ila allah li njëkk a war ci yow jullit li njëkk a war ci ñun jullit yi ñu xam ko jàng ko dund ko mu leer ci ñun mooy wan yoon la ñuy jaar ba jëm ci yàlla ñu moytu àdduna ak caaxaan yi nekk ci àdduna ñu moytu bànneexu àdduna bànneexu bakkan ñu jéem a xam yoon wu leer wu jëm ci yàlla ñu soobu ko jëm ci yàlla fa firru ila allah fa firru ila allah yàlla leen xëlu leen daw ñëw ci man fa firru la wax fa firru ila allah fa taaraf alsabil war nañu faxe ñu xam yoon wi ban yoon almawsuula ilayhi yoon woo xam ne ku ci jaar yegg ci yàlla suñu xamee yoon wi lan moo ñuy war mooy ñu jéem cee jaar yoon wu jëm ci yàlla nag sikk nekku ci ne laa yaxlu min al awaiq sikk nekku ci ne bépp yoon bu nit jaar soobu ciy dem yoon bi day am ay jafe-jafe rawatina nag yoonu yàlla yoon bul de laaj leen yonent yi al anbiya alayhim salaam ba ñu sooboo yoonu yàlla lan moo leen ci dal yonent yi laaj leen yonent yi te ñoom ñoo gën ci li yàlla bind ñoom yonent yi waaye keroog ba ñu sooboo yoonu yàlla lan moo leen ci fekk nañ laaj Muusa nañ laaj ibrahim nañ laaj nuux muusa ibrahim isa muhammad keroog bañ jógee ne ñu ngi jëm ci yàlla lan moo leen ci fekk te ñoom ñooy ponkal yi kon ñun ñu ndaw ñii di sunu mbir yoon wu jëm ci yàlla jafe-jafe kese la du yomb mukk ci kaw suuf wa kullu tariqin la budda lahu min nihaaya aydan waaye bépp yoon mbokk yi fokk ñu xam ne dafa am fu muy teeri bis boo amee point de départ am nga nuxtatu nihaaya am nga tomb fu muy jeexee kon tomb dund yoonu dund tàmbaleem départ am mooy su muy jeexee mooy dee suñ ne waajaa ngi dund rek ngénte nañ ko nañu xaar suba ñu ne dañ koy dëjal diggante dund ak dee lu jege la yonent bi nee na dee def leen jege comme leen seen daal lu jege soo ne bërëb li ngay njëkk a wax mooy ana samay daal noonu yonent bi nee na noonu la leen dee jege ixwaan yi wa daiman takunu l ahdaaf li am importance toujours mooy jubluwaay bi fi ngay teeree lan moo tax nga jóg li tax ngay jaamu yàlla li tax ngay def loolu mooy imp loolu moom jubluwaay loolu mooy importance li ngay def nii lan mooy jubluwaay bi mooy pour nga dugg aljanna comme duggagoo nag bul tekki sa ngem yàlla waxoon na Moussa yaa Moussa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna Moussa bul naagu de sa julli yu bari yi sa koor gi ngay def sa naafila guddi yi sa azkar yu bari yi bu mu la jay ba nga yaakaar ne dungaa jana laa taaman makri hatta tara nafsaka fi janna bul wóolu mu dul nga gis sa bopp bil aljanna abubakar saddiq kenn la ci yonent bi wax ne abubakar mu ne ko labbayka mu ne ko anta min ahlil janna abubakar nee na sama tànk ndeyjoor bu duggee càmmoñ bi dugagul wóolooguma abubakar Abu Bakr Umar yonent ne law kaana nabiyun baadi la kaana umar mu ne su ma déggoon benn baat woote kaw asamaan ñu ne yéen ñëpp di ngeen dugg aljanna ba mu des kenn mu ne dinaa tiit dafa ne duma kooku ñooñu wóoluwuñu seen bopp ñun ñu wóolu suñu bopp ñu am confiance ñun ñun koo gis muy dox ci ñun ku dugg aljanna la soo ne woon mbooloo mi ñëpp dañuy dem safara kenn mooy def aljana man mu gàtt xel dama naan man la gaa yi ñi ñëpp safara la ñu jahannama ixwatil iman kon lu ñu war mooy ñu xam ñeent ñett ci biir fokk ñu xam maarifatu sabil ñu xam yoonu yàlla fokk ñu xam ko ñaareel fokk ñu xam maarifatul awaiq allati fii fokk ñu xam yoon wi yan pakk-pakk ñoo ci nekk yan gàllankoor moo lay téye ba doo dugg aljanna ñetteel taalluqul qalbi bil maqsud fokk suñu xol yi ñu aj ko ci li ñu bëgg suñu xol yi duñ ko teg ci leen lu dul fi ñu bëgg foofu rek la xol yi di aju du bëgg leneen lu dul loolu fi mu fi mu jëm rek te mooy allah subhanahu wa taala aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخواني في الله لقد انشغل الناس عن هذه السبيل وصرفوا بالجدل وراه يخطبون خطبة أسواع فيها لم يخلقوا لأجله فإذا بالقوم يمتهنون في هذا العلم فيرسبون لأنهم اهتموا بالمفضول وتركوا الفاضل اهتموا بالتنازر حول المسألة والمسألتين والدب الخلاف الذي قطع أواصر الأخوة وأتى على البنيان الدعوة من القواعد بقي li nu dal feebar yi ñu dal ba mënuñu dem ci yàlla subhanahu wa taala mënuñu jël aj sunu xol yi ci yàlla mooy nit ñi werante moo leen teree egg ci yàlla werante nañu xool tey dundu islam bi ñu xool këru islam yi ñu xool woote l'islam bi lan moo tax l'islam bi mënul normal ay werante ay pàcc-pàcc ay mbooloo mbooloo ay kuréel kuréel kenn ku nekk li nga bëgg sa bëgg-bëgg ngay jiital doo xool li yàlla bëgg dootoo xool li yonent bi indi woon li nga bëgg rek ak mbooloo mi lu ñu topp loolu ngay topp ñu nekk ci loolu di xëccoo di werante di xeex di xuloo topp ci taaru àdduna taaru àdduna ñu bàyyi li taxoon yàlla bindunu topp ci ay masala ba werante bi tasaaroo xilaaf bari ba xilaaf baree lan la def dafa jël jaasi moom xilaaf mu dagg mbuumu cofeel bu jullit ñu waroon cofante koo wuuteel rek nekk sa noonu koo wuuteel rek sa noon la parce que yaa moom bokku leen gis-gis ay noon ngeen kon taalaw li nu daawil qulub bu ñu bëggee faju nañu faj xol yi xol yi feebar taalaw nastazkiru masaila hada al ilmi sharif تعالوا لنتعلم لنتعلم كيف السبيل الى رب العالمين ñëw leen ñu ànd mbokk yi faj xol yi feebar yi ñëw leen ñu ànd ñu ut xam-xam bi nga xam ne moo nuy yóbbu ci yàlla ñëw leen ñu ànd ñu xool yoon wi duñu yegg ci yàlla yoon ban mooy ban yoon awalu zalika yoon boobu bi ci njëkk mooy an taarifa xaqiqata dunia soo bëggee egg ci yàlla foog nga xam àdduna bi ngay dund mooy lan pour nga mën a rëcc àdduna soo xamul kër gi ngay dund muy àdduna doo mën a dem ci yàlla parce que àdduna daf lay jàpp ñu bari ci ñun àdduna moo leen jàpp duñ dem fajar jàkk mukk abadan c'est parce que àdduna moo leen jàpp ay lal ak nelaw moo leen jàpp lal ak nelaw lan la àdduna ñu bari ci ñun duñu dem juróomi waxtu ci jàkka pourquoi am amu àdduna moo leen yitteel borom alal yépp cent pour cent ci Sénégal li ci ëpp duñ julli juróomi waxtu ci jàkk doo dem jumaa ba fekk fa député doo dem jumaa ba fekk fa ministre jàkk lu dul lu néew ci ay borom alal lu néew lu tax parce que àdduna moo tax yoon bi moo leen téye àddunaa leen téye ba duñ dem ci yàlla am nañu ay soxna téye waa ji ñu noddu fajar asalaatu xayru min an nawmi mu bëgg a jóg soxnaam teg ko loxo mu delluwaat ci kawlal bi mu fàtte bis mu ngi ñëw soxna si dina yuuxu ba ñépp ñëw mu ne jël leen yóbbu jàkka ba adduna mbokk yi moo ñu tere egg ci yàlla adduna adduna bi ñu yàlla wax ne seen noon la adduna bi ñu yàlla wax ne day waraate adduna bi ñu yàlla wax ne dalla man dalla bi makruhiha zalla man zalla bi xururiha dalla man dalla ci waru adduna la adduna sànq ñu baree baree bari ci waru àdduna la tarxiis loo ñu baree baree baree bari moom àdduna allah subhanahu wa taala di ñu wax ne yonent bi nee na musiba bi gën a rëy mooy bëgg àdduna rasu kullu xatiatin hubbu dunia hubbu dunia rasu kullu xatia bëgg àdduna mooy musiba mooy kirim bi gën a rëy ci àdduna mooy bëgg àdduna sunu jigéen ñi lan moo tax mënuñu jaamu yàlla benn laaj la sunu jigéen ñi lu tax mënuñu jaamu yàlla bëgg àdduna jeex na àdduna mooy tere egg nit ci yàlla ku bëgg a dem ci yàlla bàyyil àdduna benn boroom xam-xam dafa dégg ku naan aoudu billahi min alshaytani rajim mu ne ko bàyyil yëfam yal na ma yàlla musal ci seytaane mu ne bàyyil yëfam boo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la intahal amru sunu boroom subhanahu wa taala mu ne ilamu أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة ndax loolu du avertir i'lamu xam leen yëg leen annama alxayaata dunia naka dund adduna bii ngeen di xëccoo di jiiroo di ci reyante tey da ngay gis Sénégal ñuy rey ay nit ndax lan adduna kese est-ce que yàlla moo tax ñuy rey nit ñi Sénégal dunia adduna i'lamu annama alxayaata dunia laibun yàlla mu ne na leen leer ne àdduna fola wa lahwun ak caaxaan wa ziina ak taar taarlu koo gis lu rafet rek lu rafet rek moo ko yitteel rafet taar taar rek rafet wa tafaaxurun baynakum ak di ngand ngandalu di jaay mbagg léegi sax koo gis muy dox cam day bonde day génn dënn bi sol tubéy bu ngand sol yére bu xat dàll yu rëy génn dënn di wale ne man dama am doole wa tafaaxurun baynakum ngeen di tiitaru di ëppalante ngeen te sax koy def da ngay rey nag teg bopp bi ci buntu kër gi pour bu nit ñi ñëwee xam ne yow nag nga rey boo reyee nag bi guddi bopp bi kenn du ko fees danga koy teg ci buntu kër gi bu dee dëj bi sax dañuy rangale cin yi ci benn bayaal bu yaatu cinquante cin pour ñu xam ne kii borom doole la moo dee borom doole moo dee waaye war na xam ne ki ko ëpp doole moo ko rey kon amul doole waaw dëj bi dëju borom doole la ki ko ëpp doole kay xam na ne moo ko rey kon kay moom amul doole fokk ñu delloo suñu xel ci yàlla buñ bëggee dem ci yàlla àdduna daf ñuy gàllankoor borom bi mu ne subhanahu wa taala wa takaasurun fil amwaal gis nga bëri lante alal di dajaley jal fàtte jalla jalaaluhu dina ñëw jël ñu ñëwu ñu jal ñu ñëw tas jali ñu jaloon jaale ñu alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir gis ngeen aaya boobu da ngeen ko doon dégg mu wàcc septième siècle yàlla naan alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir yéen a ngi jaay bëri lante alal ba ci bàmmeel ya demal yoof nga gis bàmmeelu étage loolu moo lay wane kii borom alal la bàmmeel bu ñu tabax karamaar bu moo wane kii borom xaalis la bàmmeel bu ñu tabax boo xam ne boo ñëwee ci kër yi kër yi meluñu noonu bàmmeel bi moo gën a rafet kër yi kon li yàlla doon wax ñëw na hatta zurtumul maqaabir ba ci bàmmeel yi benn borom xam-xam dafa dugg ci bàmmeel yi yuuxu daanu ñu ne ko lan la mu ne nit ñi ni ñuy dunde ci adduna bi dañ koo lànk ba indi ko ci bàmmeel yi boo demee ci adduna bi di xool kër yi di nga xam kër ku am xaalis ku amul xaalis alaysa kazalik ndax loolu du amul soo demee ci kër yi nga xam ne kii am na kii amul boo ñëwee ci bàmmeel yi nga xam ne borom bàmmeel bi dafa am kii amul waaye nag war nañ xam ne amatul ndax moom amatul dara mu ngi ci biir bàmmeel amul dara te bàmmeel jarul tabax ndax yonent bi nee na rawdatun min riyaadil janna aw xufratun min xufarin naar bàmmeel ñaar yooyu kesa la te sax li ci gën a doy waar mooy rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar bëri na bàmmeel bu ñuy wër di ko ziyaare borom bàmmeel bi mu ngi biir jahannama gars yi di ziyaare bàmmeel bi ci kaw fekk borom a ngi safara lu tax bàmmeel kenn di ko tabax yonent bi nee na bàmmeel xur la ci xuru safara yi wala jardin ci jardin aljanna yi bu waa ji nekkee aljanna nga tabax bàmmeel bi ban njëriñ la bu waa ji nekkee safara nga tabax bàmmeel bi ban njëriñ la ku nekk safara ñu tabax sa bàmmeel ixwatal imaan yàlla nee na yemu leen rek wa takaasurun fil amwaali waaye wal awlaad même doom sax nit ñi dañ koy jaayante doom doom doom da ngay gis ñuy jaay ku nekk di jaay doom doom yi nga am sunu borom nee na yemu leen sax ci waaye maa ngi leen di wan ne aduna ka masalil xays mu ngi mel ne taw gis ngeen bu taw tawee ba suuf si tooy xale yi lu ñuy def bu ñu génnee ci mbedd mi day jël suuf si di ko tabax ay kër waaye bu naaj bi tàngee ba tàppe ci suuf si suuf si wow fu muy mujj dañ koy moxoñe daal di jóg ku nekk dem añi yàlla nee na sunu kër yi ñuy digg dund noonu la xale yi comme ni ngeen koy gisee misaal xale yi di fo ci suuf soosu noonu la kër yi mel mais léeg nga gis ku kër yi jaay bam naan man am naa titre foncier sama kër gi titre foncier la fekk kër gi titre font la titre foncier mu ngi fële mooy fi ngay tëdd wëlbateeku doogu mën foofu mooy titre foncier fii titre font la léegi nga dee keneen ñëw jël ko toj ko raser ko ba mokk daan ne dóoral lan ma ko beneen immeuble parce que kii xamul woon kër gi li li fi war kër gi ni mu placé mu fiy def lii ngeen xam lan la keneen ñëw def fi leneen keneen ñëw def fi leneen ba àdduna xëy yàlla ne man maa ko moom yéen ñëpp nag moomu leen tus inna nahnu narisul arda wa man alayha man maa ko moom maa ko jël اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله saw saw yarhamu